waxoon ma ni dina ànd ak soxnaam pour ñëw gàmmu si waaw ñoo waroon ko tudd xam naa Cheikh daf ko jotul noté waaye ñu di ko yëgal rekk ni présence am fii fa tabaarakallaahu am na solo ba mu ëpp ndax itam lépp lu ko kilifaam jaral ñun jaral nañ ko lu ko lu toll noonu waaw te la xam na ni ba muy commencé di défendre sama cause ci télé bi rek laa ko gisee waaw muy wax yu rafet yu ne sama anniversaire jot mu dem dajale taalibe ya mu am ñuy ñëw ci saalam mu ni defal leen ma xasida te ngeen way ca kaw ndax dama koy participer ci anniversaire u Serigne Moustapha njaboot ya defal ko ko fa tabaarakallaahu mu mel ni kon nag bokk na ci gor gor yi ñu téye woon ci biir prison bi nga am na gor gu nga xam ni prison mënul changer dara ci moom waaw nee xëy na ay liberté conditionnelle ak yu kenn xamul ay yëpp ay faux problème la dana jeexi ji waaw dana jeexi ji te ñi nga xam ne seeni arriéré lañuy ñuy protéger ma di leen yëgal ni arrière du fi am man ma la ko wax waaw waaw